Barthélémy yi mu wax démb. de temps à perdre parce que moi. c'est le Sénégal da nga yaakaar déglu ko si ay waxtu yooyu yàq la. je dois dire Barthélémy Diaz n'est pas leader de Yewwi Askan Wi. <laughs> Ah, ki waxoon na ko taxawu Ndakaaru. taxawu Ndakaaru la oh, na Khalifa Sall jënn wax parce que moom moo doon leader fondateur euh, taxaw. kon boo amee ku wax wax Khalifa ah, moom moo war a am droit de réplique parce que moom mooy le euh, il paraît que trois partis yooyu PASTEF PUR ak mm-hmm. taxaw Dakar ñooy les membres fondateurs mm-hmm. mais ñoom am nañ pacte bu ñu signante woon mm-hmm. mais pacte boobu kan moo ko violé il paraît que ci pacte bi dafa daf ci bokkoon bu kenn am ak rapport ak état bi ak Macky Sall loolu dafa bokkoon ci ponk yi ñu doon ci ponk yi ñu signé léegi bu fekkee ni kenn violé na pacte boobu mooy jénnee na boppam pas dañ ko jénne voilà waaw <laughs> ah, mais Barthélémy Dias nee nee na bi muy bi muy bi muy dem di waa kii yu Macky Sall nee na wax na ak wax ak ñi war a waxal wax na ak Sonko yooyu donc Barthélémy Dias jàpp na ni moom li mu doon def lu baax la en fait est-ce que def lu baax ba ñu mujj la génnee kër gi jar na ko. tu sais que le vrai sens de la justice c'est de mettre toute chose à sa juste poste. Mmh. <laughs> c'était pas à lui de. de répliquer de répliquer ou dem di négocier ak Macky pour. au nu mu tuddati man de son premier sortie la ba Sonko génnee daal di ne bon am na ci opposition am na ci waa taxaw ñuy dem di combiner ak Macky Sall la wax. Mhm. rapidement Barthélemy génn. Mhm. daal di ne man mii maa dem te ba ma doon dem di wax moom yëgoon na ko maa doon dem di négocier ak Macky Sall mais foofu laa ne loo du woon cëram. Mhm. ah du woon cëram. so moom mooy kan. kan mooy kan mooy kan mooy Barthélémy Dias. le maire de dakaar ah maire de Dakar kañ la commencé nekk le maire de Dakar. c' était le maire de Dakar Mermoz non. Mermoz Sacré-Cœur comprendre nga. ñoom ñëpp euh, tey jii comme ni na benn kii bu koy wax ñoom ñëpp euh, tey jii bu ñu amee approche bi ñu am ci waa Pastef ba am li ñu am c' est à cause de Adji Sarr nañ ko sant Adji Sarr parce que bu dul woon problème mu suite bote ba. Mm-hmm. <laughs> duñu yegg si si fii. c'est des conséquences. mais tey Barthélémy bu toogee. Mhm. jàkkaarloog euh, la presse. Mhm. ne leen man gëwuma gatsa gatsa. Mhm. waxtaan laa gëm ak liggéey. loolu kàddu yooyu nan nga ko mën a interpréter. ma Barthélémy Dias bu mu sa gatsa gatsa ba àgg fii na gëmatu ko parce que Barthélémy xam nañ ko. <laughs> profil de Barthélémy Dias daa mel ni génnul génnul gatsa gatsa mais da nga yaakaar ni gatsa gatsa ay làmmiñ la même tempérament façon de parler mm. mode de parler façon d'agir mode de réagir mm. yooyu bokk na ci gatsa gatsa eh, rek yooyu yëpp bokk ci gatsa gatsa uh-huh. est-ce que comprendre nga uh-huh. xam nga fii Sénégal la quoi ku wax feeñ mm-hmm. <laughs> comprendre nga mais toujours nañu xam ni rek ñuy wax mm. am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di déglu te xam nañ li ñu xam quoi. Mhm. comprendre que ñu respecte un peu quoi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu insulter suñu intelligence ko mhm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji parce que démb fii ñoom ñëpp leader politique yëpp ku ci nekk ngi doon saraxu Ousmane Sonko mu ñëw defal la campagne. Mhm. voilà. dëgg tey jii bu ñu ko bëggee weddi waaye àdduna la garaawal comme dégg naa jiba ko da doon wax toute la politique n'est que trahison ay question de moment rek et d'heure caméra ñoom bu fekkee ne ñoom ñëpp ay taalibe machiavélique lañ boo waxee ñu naan politique ñoom ñëpp. Mhm. ay taalibe machiavélique lañ c' est des produits de du système donc grawul quoi mais ñun am nañ benn leader boo xamante ni c' est un citoyen musulman sincère. Mhm. après il a des visions qui son saines donc duñ ko dañ koy protéger ah duñ ko bàyyi ñoom ñu koy détruire ci ci ci ci ci ay caaxaan quoi. wax. mu ngi des ni ba tey ci soxteem nee na liy génne Ousmane ko fi mu nekk loxoom du ci génn. cela veut dire que li ko fi dugal loxoom mu ngi ci. <laughs> da nga bëgg wax dafa dugal ba moom ci wax ji maanaam dafa wax ba dugal boppam en fait lu nga bëgg wax. Ah, nee li liy fay génn Ousmane Soxom loxoom du ci génn. doomu ndeyam la comme il a l'habitude de le dire sama doomu ndey sama doomu ndey yooyu c'est des sentiments sénégalais ay doomu ndey doomu baay ay liggéeyu ndey liggéeyu baay yooyu yooyu amul quoi ça n'existe pas quoi. Mm-hmm. ay barke ay affaires yu demee noonu. Mm-hmm. yooyu taxawul quoi. Mm-hmm. xam nga lan moo taxaw ah. lan moo am ah tu vois gis nga l'islam l'islam ci ñeenti point rek lay taxaw ah. muy ban ak ban ak ban. gëm jub yu rafet. sellal. ñeent yooyu mooy lislaam ku la wax leneen waxu la lu dul dëgg ku mënti doon nag mhm. dangay gëm da ngay jub da am jikko yu rafet mhm. baax tabe sincère mhm. après sellal loolu mooy lislaam jeex na amul ma dem te ñëw ku la fi wax leneen ak ku mënti doon wax la wax na la euh, quelque chose boo xam ne bokkul ci l'islam d'accord Ouzin pour euh, juste transition rek président Macky dafa lu mu daan wax Mhm. je vais réduire l'opposition à sa plus juste simple expression simple mhm. est-ce que tey loolu il n'a pas réussi. non non il n'a pas réussi parce que opposition bi moo ko réduire à une pré à une président qui à partir dans six mois <laughs> c'est le contraire ba. d'accord <laughs> ok fi mu toll li ñuy ñaan mooy six mois yi buñ fi def bu mu fi def bêtise rek quoi. Mm, mm. <laughs> yaakaar nga du fi def benn bêtise tam ndax déjà euh, ñu bari ñu ngi doon xalaat mu def troisième mandat. mu taxaw ne du ma ko def ñeneen jàpp ne pression. Mhm. Euh, moom moo tax mu def ko ñeneen ne loxo euh, étranger yi ñoom ñu ci dugg. tey mu taxaw ne duma ko def ndax yaakaar nga ci duma ko def boobu rek ci lay yem wala ci diggante 6 mois yi mën nañu am leneen loo xam ne dinañ ko ci xaar. c'est à cause de Pastef Ousmane Sonko moo tax deful troisième mandat. c'est à cause de Sonko. waay waay Sonko s'il n'était pas radical Pastef bu fi nekkul woon. Mhm. Eh. day xuus. tey dem parce que man ñaari ñaari kii laa defoon quoi ñaari perception avant dara di xew dama ne soit depuis deux mille vingt et un dama ne ñaari option ñoo mën a am. Mm-hmm. le président Macky Sall def troisième mandat bàyyi ñëpp ñu defandoo troisième mandat ñu compétir. Mm-hmm. xam ne day bokk. soit wala mu retiré yóbbaale Ousmane Sonko. est-ce que de option boobu tey moom mooy wane. boobu moom man option boobu laa gis tey <laughs> mais yaakaar nga mu yomb tamit Ouzin. Hmm. duma bokk doo bokk man yaakaar naa bu fekkee yow doo bokk. Mhm. am nga légitimité ne yow bokkoo ñëpp nañ ci ànd ak yow waaye du bokk doo bokk duma dem doo dem ndax loolu tamit dina nekk lu yomb. fi mu toll nii bal bi mi ngi ci camp justice. la justice sénégalaise. waaw mu ngi seen camp ñoo war a ñoo war a mhm. parce que. la justice doit être ici pour le peuple au nom du peuple léegi nag. Mhm. bal bi mi ngi ci camp justice léegi nag dañuy xaar justice ba xam lu ñuy décider. d'accord les sept sages lañ leen di tuddee. Mhm. ok ñu ngi leen di tuddee les sept sages yàlla nañu wuyoo seen tur. mais mais mais en fait euh, mais li nga xamante ni nag mooy euh, est-ce que ñu bëri dafa dañuy wax ni euh, taxalikoo bi entre waa Yewwi yi ak Pastef yi mhm. maanaam waa taxawu Ndakaar ak Pastef yi ñu bëri dañu jot ni bettu leen ñu bëri dañu ni bettu leen parce que ànd bi c'était pas sincère en fait dañ doon ànd rek pour suuxlu waa ji mu dugg ci ndëgg sërëx bi ñoom ñu génn écarté wu pour am la voie libre en fait élection 2024 te loolu Bougane mos na ko wax ne àndu dëmm la bon de toute façon ñoom euh, politique politicienne bi moom la ñuy dund ah Bougane waxoon na ko que Gaston Mbengue je mhm. pense que waxoon na leen ko waxoon na ni sonk ñi ngay gis sa wet ya bëgguñu la mhm. Mhm. buñ sañoon yow doo bokk parce que tey ji Sonko da koy leer ni bokk Sonko mooy ñu bëri dinañ dem retraite waaw bokk euh, nu mu tëdd si Ousmane Sonko gagné 2024 classe politique bu bëri dinañ dem retraite mais ce qui est ce qui m'intéresse mooy que ni à cause du phénomène de Sonko et de Pastef ah mhm. toutes les traîtres feeñ liñ ko de la République mhm. donc ñoom beru bi ñu beroon ni dem est-ce que jàpp nga ni Khalifa Sall par exemple su demee élection présidentielle est-ce que jàpp nga ni dina dina mën a am dara par rapport li fi juddu nii bon de toute façon du ma anticiper mhm. de toute façon mooy que fi mu toll nii man li ma gis mooy que ni politiciens yi ñoom nañ nekk seen biir. Mhm. di def seeni i di def seeni di def seeni i combine. Mhm. di def seen i njuuj njaaj. Mhm. mais peuple bi ñu ngi leen seetaan après du ci ñun la ñuy ñëw aussi voix bi la voix du peuple. su boobaa peuple bi mooy décider. man kañ li may ñaar rek mooy nañ ñu tegal élection yu yu yu indépendant yu transparent yu libre. loolu laay ñaan quoi man sama préoccupation loolu la quoi. parce que man inquiétude bi ma am mooy que ni Sénégal j'ai peur que est-ce que dinañ fi def élection yu transparent yu yu libre yu indépendant quoi. Mm-hmm. loolu man. dafa am looy tiit quoi si loolu. ah oui. lu tax ah parce que tey jii avant 2012 dañu sonaloon Ablaye Wade pour mu détacher les élections au niveau du ministère de l'intérieur. Mhm. jox ko une euh, kii privée. Mhm. mais loolu ba ba. tu vois ba Macky Sall ñëwee da ko delluwaat ministre de l'intérieur te nanguwul ko jox. kii mhm. privé. et puis fii lañ fa gis les élections yi la passé jamono Aly Ngouille Ndiaye nekkee. ministre dafa taxaw ne moi je vais je vais organiser. Mhm. des élections libres et transparentes mais je vais faire tout pour que mon candidat gagne. Mhm. <laughs> c'est un peu paradoxe quoi. Mhm. comprendre nga. mais nag instant suñ toll nii est que est-ce qu'on aura des élections libres et indépendantes et transparentes quoi. même sans Ousmane Sonko. même sans Ousmane non Ousmane Sonko fi mu toll nii moom dafa dépasser statut. leader politique kese Ousmane Sonko day joxe ndigal la ah. Ousmane Sonko ku mu ngemb koo koy daal. d'accord comme tey bu désigné woon benn nit mën nañu jàpp ne kooku am na forte chance pour euh, jël élection yi. bo man je suis à cent pour cent que pour que Ousmane Sonko bokk waaw man sur ça te dafa war a bokk. Mhm. bu fekkee ni nag jaay nañ ko doole ba tere ko bokk. Mhm. waaw je pense que Ousmane Sonko bu sampoon yaawu jaal mbër sax mu jël kële mu gañe <laughs> d'accord mm-hmm. mais euh, leneen loo xam ne war nañ ci mën a àddu jëwriñ mm-hmm. muy réhabilitation ñaari cas yi Karim Wade Khalifa Sall mm-hmm. ñu leen doon toppee gis nañu ce qui s'est passé euh, euh, détournement de deniers publics ay milliards yu bari ci Sénégal kii ñu tëj ko mu jéggi ñu may ko grâce ba ñu may ko grâce. Mhm. Karim Wade du ñu jël ko guddi ñu wutoo ko passeport yóbbu ko mhm. Dubaï. tey ñu voté waat à l' assemblée nationale ngir ñu bokkaat ci élection présidentielle yi ndax amul lenn loo xam ne mi ngi ci suuf te kenn waxuñu ko. bo man par respect pour euh, les militants du des socialistes et du parti démocratique sénégalais j'en pense quoi damay passé quoi parce <laughs> que xam nga mais bu ma waxee sama vision. mooy que ni bon personnellement c'est des écoles yoo xamante ne jot nañ def seen jot nañ wane liñ mën ko <laughs> foofu ngay yem foofu laa yem ko kon ci ñu dee na ba def nañ seen temps quoi en fait. d' accord <laughs> d' accord alors euh, di leen fàttali seen émission euh, jamono daanaka euh, ñu ngi ci dernière virage bi je pense bu dee bu dee bu dee amul loo ci dolli par rapport ak politique bi ñu génn dugg ci beneen pàcc. waaw politique bi de wax na ko. mu hmm. nekkoon euh, Karim Wade foog naa li mu jot a wax hmm. bëggul dugg hmm. ci biir un peu. peut-être pour ne pas vexer les militants di di xaar mais xam naa dañ ko koy nangu rek comme que foofu dafa xaw a <laughs> dafa xaw a sensible. Euh, dañ ko koy candidat candidat candidat candidat benn donc peut-être. voilà euh, kan nga jàpp en fait nii kii Macky Sall bu doon tànn xëy na moom lay tànn. waaye man maa ngi mel ni ku mar ku mar naan quoi. <laughs> café gi. tumaani andi café gi non non non mar pas par mar naan bi quoi maanaam maa ngi mel ni ku mar naan parce que j'attends que Macky Sall ne kii mooy suñu candidat quoi euh, jëwriñ bi ñu ko annoncé mm. ne président léegi mu tànn ñu jékki-jékki ne dimanche bu bële mm-hmm. ñëwaat na ba suba dimanche ñu jékki-jékki gis ne candidat yi dañu ñëw mm-hmm. à l'assaut ñoom mm-hmm. ñëwandoo mu am ku ki seppi loxo muy goro Massou Faye ne ko yow ma mun a bokk bàyyi fa ñeneen ñi alhamdulilah <laughs> alhamdulilah Amadou Ba Amadou Ba nekk potentiel candidat moom nag sampul ndëndam ne ne day xaar choix fur boo fur boo loolu italien yi daan furbo. waaw xam nga furbo mooy lan. ah mboŋ. mboŋ muus muus lu ko wax. d'accord kon moom jàpp nañu candidat mu mboŋ la. ñeneen ñi tam ñu ngi samp seen dënd mais mu jékki-jékki moom tam président Macky Sall ne mënatul tànn da di bàyyi ñu waxtaan ba juboo mhm. euh, ku ñu andi rek kooku lañuy ñuy jël ndax yaakaar nga tànneef dina yomb tamit. bon këram la moo xam ku muy tànn man daal de façon mooy kenn du ma yàqale. Mhm. Sénégal moom kenn du ko yàqale quoi. ne ko mooy ah d' accord comme yàqale. waaw ñun moom nga dugal ni ci car rapide ba wàcc ne ko bii ngay jël. waaw. <laughs> loolu ci Senghor si Senghor lañ ko dundoon Senghor ak Abdou Diouf. waaw Sénégal boobu ah. fekk amaat vous pensez que mënu nekkaat muy dem ku fi teg. ku fi teg. waaw bu jaar ci élection. waaw non Macky Sall moom garaaw. Hmm. je mu tuddati. na ko yàlla may gudd fan ak ba mu ba ba deux mille vingt mm-hmm. mais laata ñuy de dem ci dernier village bi. Mm-hmm. nañu waxtaan mooy si kanam tuuti sécurité bi. Mm-hmm. mais bëggoon naa un ñu waxtaan ci société sénégalaise. nekkin bi nga xam ne nit ñi nekkalante nañ ko. parfois nga gis kàddu yu jóge ci ay nit yàqalante yaa ngi koy wax léegi ponk yi nga xam ne. moom la lislaam wax muy sellal. jubal ak yooyu est-ce que lu mel noonu yaa ngi koy gis ba tey ci société bi déjà dina am ay tuuma yuy teg ci kaw nit dañu sosal nit dañu jéem a yàq nit dañu jéem a faqastal nit ak yooyu ce point de vue par rapport ak phénomène boobu ñu gis ci Sénégal. ah même société bi moom booy xool bu fekkee ni damay lay wax dëgg les deux les deux les deux dirigeants les deux secteurs la muy secteur politique ak secteur religieux. le mm-hmm. politique et le religieux ils ont échoué quoi. Mm-hmm. ah, ah ils ont échoué quoi. parce que. jërëjëf ouais. Ouais, ils sont quoi parce que la religion. Mhm. tu sais que crise économique boo gis. mu mhm. ngi bàyyeekoo ci crise de morale. Mhm. temporelle ak spirituelle ñoo fi nekk. léegi nag crise économique boo gis te sam te temporelle. crise de morale boo gis corruption moo koy jur. d'accord te c'est spirituel c'est moral. Mhm. tu vois donc ñoom ñaar ñëpp a échoué. Sénégal euh, corruption bi dafa dugg dans le domaine religieux dugg dans le domaine politique te sori ci trop waaw Sénégal euh, euh, amuñu amuñu système d'éducation culturel économique ak social bu ñu mën a permettre ñu génn ci situation bi ñu nekk Sénégal tegagul pilier yooyu ko donc solution du mën am. solution amagul quoi te le contraire sax mooy am doomu sénégalais bu baax bu jóg pour indi solution ñu rey la nga dee. ak li fi nar a meññ yëpp ci teranga ah. ci réew mi li fi nar a meññ comme pétrole bi zircon beeg yooyu yëpp. or bi kañ la nekk sabado la depuis kañ. yàgg na mais waa Sobadola dañuy jooy jëwriñ mooy duñ ko gis bu ñuy transporter or bi sax dafay am dispositif sécurité boo xam ne ñu nekk ci village yi. dañ leen tënk ba ñu dem. noonu la richesse boobu di mel ci ñun sunu bakken lay jaar def dañ koy xeeñcu rek duñ ko mos. te mu ci suñu suñu dëkk ñu nekk ay doomu Sénégal tamit. ñu ko wax te de parce que fii Sénégal yéen moomu leen ko de. ku moom Sénégal. moom Sénégal France. <laughs> bon. indépendance bi ñu am kon jëriñ lan lay jëriñ. soi-disant indépendance ngeen am procédé indépendance yow lan nga am indépendance yow sa école moomoo ko sa monnaie moomoo ko. foo jëlee indépendance. Mhm. est-ce que xam nga ban feebar moo ñu dal. ban la. aliénation xam nga l'aliénation culturelle. maanaam mooy nit koo xamante ni. Mhm. maanaam gëmul boppam. dafay halluciner. maanaam gëmul boppam pour moom maanaam buy wax dëgg dëgg bi bu jógewul ci tubaab yi sax du dëgg. Mm-hmm. dëggu jàmm la wax. moom tubaab bi dafa def benn colonisation culturelle boo xamante ni ñun ñoom ñooy suñu seetu. bokk la ci complexe tamit. complexe la parce que complexe dafa am ñaar complexe d'infériorité ak complexe de supériorité. Mm-hmm. tubaab yi complexe de supériorité am ñu moo leen dal parce que ñoom dañu yaakaar ni ñoom ñoo war a diriger le monde. ñooy def loi yi ñooy décider. Mm-hmm. ñoom ñooy def lépp. ñooy décrire les politiques ñooy samp modèle de gouvernement yi ñoom modèle d'économique yi ñoom ñëpp ñoom ñoo koy def boo ko defee le reste ay suivistes lañ. Mm-hmm. complexe d'infériorité na nag mooy que ni nit ki bu fekkee ni da nga yaakaar ni moo la ëpp alal moo la gën a rafet moo la moo la kii da nga yaakaar ni moo la gën. d'accord. Mm-hmm. soble soble bi ñu bi ñu ñu ñuy wutali màggal gi. xam naa dinañ si ñëw sax ci wàccaay beeg euh, ak euh, safar gi euh, gii di ñëw mais ci soble bi ñu yokk ni sama technicien moom muy soulevé sax question boobu soble bi nga xamante ne mu ngi yokk parce que un mois moo des ci ci ci màggal gi te ñëpp xam nañu soble dafay nekk lu nit yi di soxla en fait ah soble moom Sénégal rek la amee valeur déjà soble boo koy soble ak laaj boo koy lekk chaque jour boo sanguwul da ngay xeeñ manque di sa garaaw moo ko sama mbokk séeréer yi nga xam ne bi ñu deful soos ñu bi nekk nag waaw mais loolu mooy danger bi léegi yow nit ñi yow fii léegi dañu lay dañu lay invité ay ay ay ay bernde ay ay ay takk ngénte mais yu bon rek la ñuy togg ko ay ceebu yàpp yoo xamante ni toog toog ay ay soos yoo xamante ni mais mais qu'est-ce que ni ñu ko waroon coppee changé ko parce que lu nekk am na. mais alimentation Sénégal baaxul Sénégal amu leen éducation alimentation déjà diwlin bi da ngeen koy saaf ba mu c'est cancérigène diwlin bi ñu ko saafee. Mhm. te Sénégal xam nga ni ñuy toggee yaasa xam nga boo toggee boo jëlee soble rek xalaat yaasa. wala wala tufe wala yooyu. waaw euh, déjà Sénégal dañuy jël diwlin bi saaf ci jën bi wala saaf ci yàpp bi ba pare togg ci soos bi. mais ça ne se bu ñu ko woon defee kon ñu bari loolu la def de. moo tax ñëpp am cancer ñëpp am tension hypertension diwlin buñ saaf ba pare kenn waru koo lekk. Mhm. et puis soble boo koy lekk chaque jour boo sanguwul da ngay xëy ak laaj ak laaj <laughs> dégg nga. bi am na solo de. <laughs> mais il faut que kii baaxu ci. <laughs> comprendre que da ngay jàpp ginaar gi baxal ko. Mhm. saaf ko lakk ko. balaa mhm. muy ñëw ci table bi fekk vitamine bi ñu ci soxla woon. dem na te viande humide lañ la laaj. Mm-hmm. guddi boo waree lekk ginaar moo tax boo demee ci ci ci ci ci résidence yi. Mm-hmm. ajaara ngay dégg alaaji yëpp dee nañ. <laughs> ah mais dangay waaye bu guddi la ginaar. Mm-hmm. jox la soos nga lekk ba sóor ñu gungee la benn njaru soow wala sombi wala kii. dëgg la gungee la ko deux ans nga dee. subhanallah deux nga dee moo tax kër yi boo demee ajaay rek ngay dégg alaaji yëpp dee nañ. lekk bu bon bi la baaxul lu ñu saaf baaxul ci estomac. d'accord comprendre nga duulin bi suukar si. Mhm. xorom si. Mhm. nokkos bi. Mhm. loolu moteur à partir. ak bouillon yi ñuy utiliser parfois ak bouillon yi bouillon yi moom dégg naa kenn du ko laal Sénégal parce que nu mu tëddati état bu Sénégal moom comprendre nga goloor yi eh, nu mu xool maanaam kii sax meew baaxul meew mi ñuy jaay Sénégal du meew Sénégal amul meew. Hmm. suukar suukar si baaxul meew mi baaxul duulin bi baaxul ceeb bi baaxul. Ah, mais jëriñ ci loolu lañ doon lekk ba ba léegi. fii dara du ngeen gudd fan. Sénégal ku fe fi dee soixante ans soixante dix ñu ne yàllaa ko rey fekk ni moteur bee taxaw.